léegi doomu aadama yi nan gore parce que nit boo xamante ni nii dafa yàgg sonn ngir yow. Mhm. daj ñu ne ngir yow. ah mhm. warul neex rek nga ginnaaw. da mhm. ciy guddi muy ci làmb muy ci football muy ci relation lu mu mënti doon waaye dafa bëri. moo tax léegi kenn sangootul dimbali te yàlla tax. Ah, loolu la de. yàqante dafa bëri si àddina bi. bi dafa bëri di wax nit ñi nag. di jël seen xel yi di ko delloo si di ko delloo yàlla suñu bopp parce que fii yàlla rek moo fi ne hmm. nit xañul kenn. Hmm. waaw dogalu yàlla suñu borom bi. Hmm. bu koy jaar du wàcc li kii laa koy def ci nit la koy jaarale. dogal boo mënti gis nit lay jaar. kon nit xañul kenn mais nit daal ñu delloo seen xel si yàlla yi muy si làmb ji muy ci bëri muy ci suba parce que am na ñoom ñi xas booy ñaar naan booy ñaar ni mu bëree waru ko bëree booy ñaar. li mu waroon def lépp def na ko. Hmm. mais yàlla moo ñëw de yàlla moom bu ñëwee ñëw na rek. waaw ah, moom dëgg ok jaajëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di kontaan ci woote bi waa gis ngeen ni kooku tamit moom tamit vraiment. Euh, ñu ngi rafetlu li nga xamante ne moom mooy kàddu yu mu fi bàyyi gis ngeen nag mun ngeen ñëw woowaat ba léegi nii ngeen wax li nga xamante moom mooy seen xalaat. ci combat bu amoon démb foofu noonu ci arène nationale bi diggante ki nga xamante ne moom mooy Pikine comme ni ko gars di waxee donc ñoom loolu la ñu wax ñu ne ko moom mooy Boy Niang numéro 2. ñu ne man mën ngeen ñu woo ah ci 78 381 00 soit ngeen woo par WhatsApp mën ngeen ñu woo tamit par WhatsApp. Euh, ngeen wax ñu rek li nga xamante ne moom mooy seen xalaat ci combat boobu noonu amoon demb foofu noonu ci arène nationale bi wala ngay woo ñu rek ci 77 705 59 83. foo leen ñu woo rek di ñu jot ci li nga xamante moom mooy ci whatsapp bi wala appel normal ñu waxtaanee li nga xamante ne moom mooy combat bu amoon démb foofu noonu ci arène bi wax naa leen nag Modou Lo mu ñëwee fi nga xamante ne moom mooy foofu noonu ci am na fa ay ndam yi nga xamante ne ki nga xamante ne moom mooy Pape Bouba jóg da ko daan li nga xamante ne le 2 avril keneen ki moom mooy Laye Bey mu daan ko le 3 décembre 2006 keneen ki mooy Cheikh Niang daan ko 12 mai 2007 Eumeu Sène nag mu daan ko li xamante ñaari yoon 31 janvier 2014 ak li xamante ne moom le 28 juillet 2019. après Ama Baldé mu daan ko li nga xamante ne moom mooy 5 novembre 2023 démb nag mu doon bëre ki nga xamante ne moom mooy Boy Niang waroon jëlal li nga xamante ne moom mooy revanche ñoom ñi nga xamante ne ñoom Eumeu Sène ñoom Ama Baldé Cheikh Niang ak ki nga xamante ne Bey ak moom mooy Pape bu Diop. jëleen jëlal revanche Modou Lo nag jël ko tamit boole ko tamit ci li nga xamante ne moom mooy ci ñooñu noonu mu daan leen eh, ñoom ñëpp. tax na nag ki nga xamante nag moom mooy Modou moom bu ñu xoolee ci li nga xamante moom mooy carrière def na li nga xamante ne mooy ci làmb 18 ans 18 ans de présence mu am ci la moom mooy 26 combats mu am am ci la moom mooy 3 euh, défaites ak li xamante ne moom mooy benn machine machine bi moom ak ki xamante ne moom mooy Lac de Guiers 3 défaites nag ki nga xamante ne moom mooy Balla moom moo ko daan ñaari yoon ak ki nga xamante ne moom mooy Bombardier mu daan ko li nga xamante moom mooy benn yoon loolu mooy li moom mooy défaite ki nga xamante ne moom mooy Modou Xarañ Lo moom mooy euh, li nga xamante moom mooy 19 am li nga xamante ne nag moom mooy 5 défaites kooku loolu mooy palmarès yi moom mooy Boy Niang ci làmb ji mun nga ñu woo rek ci 78 381 00 ngeen wax ñu li nga xamante ne moom mooy seen xalaat xam naa ne moom lu des ci temps bi moom bëriwul na moom dans cinq minutes rek mun nga ñëw rek ci cinq minutes yooyu noonu nga wax ñu li nga xamante ne moom mooy seen xalaat ci combat ba moom mooy li nga xamante ne Boy la def am système bi nga xamante ne ñëwee rek dalay wàccee ci suuf kon erreur boobu noonu la def am na tam ñu bëri ñoom ñoom ñu ngi kaas naan Boy Niang mu bëree baaxul kon nga ñaan Niang mu bëree baaxul rek mun ngeen ñu woo rek ci 78 381 00 ngeen wax ñu ngeen lan moo tax ngeen naan Boy Niang lu mu bëree baaxul ngeen wax ñu tamit nan nga gisee ki nga xamante ne moom mooy Modou est-ce que Modou Lo day bàyyi bëre léegi nii wala da ngeen ban adversaire ngeen koy proposé waat donc euh, am na ñu bëri ñu woote ñu naan euh, mën nañ ko jox ki nga xamante ne moom mooy rëg-rëg wala jox ko tamit ki nga xamante ne nag moom mooy Sa Thiès boo leen xoolee nag Sa moom dafa am ko combat moom ak ki nga xamante ne moom mooy euh, Eumeu Sène xanaa bu pare bu paree ak Eumeu Sène waaye mun nañ ko jox tamit ki xamante ne moom mooy Reug Reug wala ki xamante ne moom mooy Tapha mu ngeen ñoo woo rek ci 78 381 00 ngeen wax moom mooy seen xalaat ci combat bu amoon démb foofu noonu ci arène nationale bi waaw gis ngeen xam ngeen ne nag en 2012 2013 ki nga xamante ne moom mooy Modou Lo na li xamante ne moom mooy euh, année moom année blanche moom ku ko def moom loolu day xaw a métti tuuti ci mbër yi moom defoon na foofu nga xamante moom mooy année blanche comme ni ma leen ko expliqué sànq rek donc xam naa ne moom bon temps bi moom bu ñu amoon mot na ñu ngi may signalé temps bi jot na. donc tey lii la ñuy andi ci li xamante ne moom mooy seen émission wax sa xalaat donc ñu ngi leen di jox li nga xamante moom mooy dig daje incha allah demain même heure même endroit ak beneen sujet d' actualité sportive.